weer des ngir Sénégal amal élection présidentielle yi mu mel ni candidat yi ñoo ngi amal bu baax a baax li di dépôt caution yi tey coalition Aly Ngouille 2024 ci teewaayu seen mandataire bi ñëwoon déposé caution wu kii di Aly Ngouille Ndiaye. léegi nag euh, tey caution boobu noonu baax na sénégalais yi xam ni ñi nga xamante ne ñooy ay àndandoowam ci politique ñii ñu tuddee leen ay militants mais ñeneen ñi ñu tuddee leen ay nit yu am cofeel ci moom. ñooñu ba jeunesse bi amee seen initiative ñu waxtaan ñu ni ñun dañu bëgg a jël en charge sa caution ñu fay ko. ñoom nag jamono ji xamle nañ ni daanaka lépp yemb na lenn desul lu dul dem déposer seeni parrainage. ñun li ñu doon laaj motale nañ ko ñun nag on verse pas dans la démagogie de chiffres 3 millions quatre millions loolu ay barigo yu amul dara ñooy créer bruit mais ki barigo bi am du bëri ay yëngu-yëngu loolu moo tax ñun. dépassé nañ parrainage bi fi ñu tollu tey déposé nañ suñu caution am nañ suñu dossier complet et fan yii di néew dinañ déposé su dossier au niveau di conseil constitutionnel. su dee yenn candidats yi ñu ngi ci terrain bi di saafonteeg seeni militan seen coalition bi ñoom beneen méthode la ñuy daal di adopté suñu sukkandikoo ci mandataire bi. ñoom ñoo tànn wër Sénégal ñun wër nañu Sénégal yàgg na xam nañ li nekk ci li yëngu ci dëkk bi. xam ne li yëngu si Sénégal xam nañu jafe-jafe yi militants yi ñoo ñuy fekk si responsable yi fekk suñu sympathisants yi fekk suñu béykat yi fekk suñu étudiants yi fekk suñu toute la jeunesse du Sénégal fekk ñu ba ñu matale suñu parrainage je pense c'est ça important. jamono ji nag caisse de dépôt et de consignation xumb lool ndax daanaka bis bu jot am candidat bu ñëw déposer caution comme kii nga xam ne nii candidat indépendant la ñëwoon déposer si caution